salaamaaleykum mbokki internet Leewtoo TV ginnaaw bañ leen nuyoo tey lundi 18 janvier 2021 ñi fas yéene ñëw jukkil leen li gën a fës ci bokk xibaaru suñu làmb avant loolu nag maa ngi toog ak nga xam te ne ni mooy Mbaye Babacar nuyu naa la. jërëjëf ndey Mbacke maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV yëpp di leen jaajëfal bu baax di am mbégte ak contentement ci ànd bi ñuy ànd ak ñun. dañuy jàll ci nga xam te ne ni moom la suñu làmb xëy bind mu ne combat royal bi nga xam te ne moo dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo bu amee fee nga xam te ne mooy ca pikin kan lay arrangé ci ñoom ñaar à qui profitera du huis clos jërëjëf Ndeye Mbacke journal bi ñëw na ci combat bu mag boobu di dox ci diggante Modou ak euh, amaa balde bi ñuy demee ci biir journal bi ñu fekk fa Max Mbergane Balla Diouf ak Boy ku ci nekk yëkkati na sa kàddu joxe sa xalaat ci boobule combat Assane jërëjëf Babacar avant tout maa ngi leen di nuyu yéen internetu Leewtoo TV di leen jaajëfal ci e, teewlu bi Max Mbargane li mu ci wax moom mooy huis clos boobu e, ñaari mbër yëpp lay arrangé puisque ñoom ñaar ñëpp c'est la première fois ñuy bëri arène nationale donc loolu du leen déranger ñoom ñaar ñëpp ñoo ci yem waaye Max nee ne dañuy bëre sans scène publique li mu ci yokk mooy que ne e, combat boobu ku ci ëpp détermination ak engagement rek mën nga ci daan euh, Balla Diouf tamit euh, àdduna ci moom li mu wax mooy arène nationale ñu bëree combat bi arène nationale def ko Demba Diop wala Léopold Sédar Senghor yëpp ci am nee na ñaari mbër ay professionnel lan te dinañ respecté jour bi waaye nee na combat boobu li koy bëree arène nationale dina avantage tuuti euh, Ama Baldé mi nga xam ne nii Pikine la dëkk Boy Gayré moom li wax mooy que ne huis clos bi moom li ma nee na d'accord ci ndax moom nee na combat lamb ak ci Ama Baldé loolu loolu la ci ñett ñooñu indi. dañuy jàll ci nga xam te ne mooy xaadim xaadim xaadim Samb bëgg na li nga xam te ne mooy combat Modou Moussa ak Amaneex. waaw jërëjëf Ndeye wax nga dëgg Xaadim Samb fekk nañ ko ci biir journal bi présentateur bi nekkoon fële ca RTS doon présenté ca xabal moom mi nga xamante ne bii moom moo tëggoon diggante ki nga xamante ne bii moom mooy Aliou Seye Junior ak ñaq jëriñu fekk nañ ko ci biir journal bi moom tamit Assane. waaw Babacar Xaadim Samb moom mi mu xam ne ginnaaw combat boobu mu tëggoon ci te doxoon ci diggante ñax jariñu ak Alioune Seye junior te mu mujjee ci ay xeexoo moom li mu bëgg moom mooy nee na da koo bëgg tëggaat léegi nee na bu ñaari mbër yooyu pare rek moom pare na pour tëggaat loolu ci teg mooy nee na pare na pour tëgg beneen combat soog muy war a dox ci diggante musandooy Ndoye ak Amaneex nee na ñaar ñoon daal buñ paree rek moom bëgg na tëgg combat boobu Xaadim Samb teg na ci ne eh, ne combat moom ci huis clos la koy tëgg te bu koy tëgg ci huis clos euh, médecin rek ñoo fay teew journaliste yi ak euh, waa CNG ak euh, batteurs yi ak chanteurs rek ñooy teew ci stade bi nee na tamit bëgg na tëgg ci huis mais du ko def PPV da ko bëgg a def euh, indi benn tele ñu filmer ko ñëpp seetaan si loolu la Khadim Samba wax. noonu lañ ko déggee MMA ki nga xam te ne mooy Reug Reug war faa bëri. waa jërëjëf euh, ndey Mbacke euh, euh, rëg-rëg ñu fekk ko fële ca New York ga mu nekkoon doon waajal kombaam diggante ak Pierre Alain Ngalani di Camerounais boobu nga xamante ne bii macha allah moom tamit gis nañ ko ci ay entraînement yu am doole rëg-rëg nag mën nañ jàpp ne jóge na New York ba àgg na fële ca Singapour fa mu war a amalee boobu boobule. dëgg la Babacar Reug Reug jógee na New York ak si na Singapour depuis samedi moom nag comme ni ko ñëpp xamee war na daje Cameroun boobu tudd ci mi nga xam ne mu ngi wuyoo ci Pierre Alain Ngalani seen combat bi nag vendredi bii di ñëw lay am bu 14h jotoo mu 14h mooy ñaareelu waxtu ci euh, euh, làkkum olof. dañu jàll ci li nga xamante ni mooy promoteur Dieye Sène nee na moom pare na pour tëgg li nga xamante ni mooy huis clos jërëjëf Dieye seen tamit amal sekk na waxtaan bu yaatu ak euh, journal bi nga xamante ne bii moom mooy suñu làmb dëgg la Babacar Dieye Sène euh, waxtaan bu yaatu la seq ak journal suñu làmb li mu fa xamle moom it moom nee na pare na pour tëgg ci huis clos moom nag jotal na taxawal ay combat yu bëri bu war a toog combat yoo xam ne ne war na wax ci Abdou Diouf ak euh, Gris 2 Naaru Sogas ak Jackson moo tëgg itam mm, Jara ak Mbaytin combat yi yëpp nee na pare na pour amal ko ci huis li nga xam te ne nii mooy xañ bi ñu xañ mbër yi ñu ngi jooytu di ñaaw li nga xam te ne nii mooy seen galère. Mm-hmm. les lutteurs expriment leur galère Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke ñu mën cee jàpp mbër yi nga xamante ne bii moom mooy euh, njaga jóob Cobra ak Sokh ñu mën leen a fekk ci biir journal bi ñoom tamit ñuy wone seen seen seen seen ñaxtu ci biir journal bi depuis ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi mbasaale làmb ci <laughs> dëgg Euh, ginnaaw ba ñu toogee fukki weer ak euh, fukki weer ci jot na yàlla tey bëriwul mbër yi génn nañ pour wax li leen naxari naaru soga génn nee na situation bu compliqué la nekk di dund nii nee na mbas mi ñëpp la laal euh, keneen mu muy Cobra 2 tamit wax na ci nee na Sénégal gi yëpp ñoo sentir mbas mi nee ñëpp la laal secteur yëpp mbas mi laal na leen am na également sox mu xam ko ñu xam ko mu nekk ci Pikine sox tamit nee na mbas moom bu kenn wax ñëpp la laal ku yó ku njëkk a rek da ragal mbas bi ñëpp la laal moo tax ki nga xam te ne ni mooy xoyantaan de nee na pare na pour affronter ki nga xam te ne mooy limousine ak tigre bu lamsaar Mbaye Babacar waaw xoyantaan de ñu mën koo fekk ci biir journal bi moom tamit mu nekk mbër ma nga xamante ne bi dafa bëgg wane la boppam ci làmb ji mu ne pare na pour jàkkaarloo ki nga xamante ne bi moom mooy limousine wala tigre kun ko ci jox rek mu ne baax na ni nga ko waxee noonu la Babacar xoyantaan de ñu xam ko moom mi nga xam ne nii mu nga nekk ci écurie HLM Guédiawaye moom nee na pare na pour affronter limousine wala tigre bu lamsaar kuñ ci pare rek kuñ ci ko ci jox rek moom nee na pare na ak jëflante maa la ñëng mu ne affiliation ou réaffiliation ce mercredi lan la ci wax. waaw Malick Ngingue moom tamit fekk nañ ko ci journal bi muy soññ ñi nga xamante ne bi moom mooy mbër yi écrits yi ak ménager yi ñu daal di gaaw ñëw def li nga xamante ne bi moom mooy affiliation wala réaffiliation Malick Ning moom mooy président écurie Xam sa cosaan moom mooy également président ARELS ARELS e mooy association des responsables des écoles de lutte et euh, des écoles et de lutte du Sénégal moom li mu xam moo li mu xamle mooy euh, affiliation yi ak réaffiliation yi dina commencé ci mercredi bii di ñëw te nee ne euh, autorités yi nekk ci làmb yi dinañ jël dinañ def benn sorti wax ci. fi nga xam te ne la dem mooy ba Gambia people ki nga xam ne mooy Pape Thiam de Ba jërëjëf mu mel ni waa Gàmbi ñoom mbas mi mbasagul làmb ja foofa. Babacar ni nga ko waxee noonu la waa Gàmbi moom mbas mi terewu leen organiser seen làmb ndax samedi bi passé benn làmb tournoi simple amoon na fa làmb jooju nag Pape Thiam moo ko jël moo baa moo moo daane géant bu barñi euh, làmb boobu tournoi boobu kii di Leyti Leyti Ndiaye Leyti Ndong. di doomu Khady Diouf Yarwaago mën moo ko tegoon ci Gàmbi làmb boobu mi ngi amoon ci benn village bu tudd Amdalaay foofu la amee woon jërëjëf maa ngi leen jaajëfal ñi nga xam te ñoom laa ànduloon ci nga xam te mooy revue de presse bi ki nga xam te mooy Mbaye ak Assane Waalo leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen revue de presse